procès bu dox ci diggante Ousmane Sonko ak maam Mbaye ñaan daanaka yëngal na askan bépp ci loolee nag daal dinay perturber ay activités yu bëri fi ci Mermoz nag jongante am na ci diggante force de l'ordre ak manifestant yi Ousmane Sonko nag moo waroon dem ca procès ba waaye daanaka nag tàngoon na jër di ñaan yàlla rek eh, kilifa diine yi ñaan ci jàmm mu sedd guy eh, eh, force de l'ordre yi tamit ñu xam ne ay doomu aadama lañu ay seen i rakk ak seeni i jarbaat ak seeni doom ñoo fi nekk ñi nga xam ne tamit ñooy topp maanaam ñooy topp convoi bi ñu xam ne tamit force de l'ordre yi tamit eh, seen liggéey la ñuy def xëy na sax li gënalu leen mais seen liggéey la ñuy def. sénégalais yi nag di ñaawlu tendance bu bees bi nga xamante ne ni ndaw yi jël nañ ko te muy nag paralyser secteur d'activité yëpp. des jeunes qui se sont battus pour avoir un temps soit peu avec lequel ils comptent vivre alors ñu yàqal leen ko kooku vraiment c'est impossible kenn kenn xamul lan lii daal il faut que euh, tu vois nit ñi daal jël seen responsabilité. mu régler une bonne pour toutes. manifestant yi nag daanaka bàyyiwuñu fenn jot nañu yàq lu bëri. siège u alliance des forces de progrès tamit bàyyiwuñu ko. Euh, lii yëpp Macky Sall la rek parce que man yaakaar naa ni man tey bu ma nekkoon place su Macky Sall man nekk ak sama jabar sama biir néeg xale yi di xeex ci salle bi war naa mun a génn sax àtte leen mais bu fekkee damaa toog fi ma toog nemmaaral bu blessure amee wala loolu man maay subir les conséquences. mënuñu liggéey man bi mooy quatrième voie bu mooy emprunté pour mën a accéder fu may liggéey mais j'y arrive toujours pas boo jàkkoon boo tasewul ak ay gendarme yaa ngi tase ak ay manifestants. man je pense que pour nit koo xamante ni dañ ko woo rek pour mu dem wuyu ji. pense que lii yëpp jaaru ko. mais nag force de l'ordre yi ñoom daal di nañu def seen kéemtalaay kàttan ngir rek mën a maîtriser